أحمد سنة القرى وإني أحمد للمصطفى نويت ما يجدد سنة القرى وإني أحمد nee na yéene ab soññam itam jëmmam. Euh, sant naa ci moom yàlla bu baax a na ni mu waxee rek mooy maam Thierno ni mu demee ci moom te yéen ñii ngeen di jëmmi maam Thierno ji taxaw fi moom nee na da cee yàlla bu baax a baax. yàlla bu baax ci tawfeex ji mu ci defal. nee bu baax ci tawfeex ji ko suñu borom defal ci maam Thierno. sant sëriñ bi nga xam ne mooy sunu lépp tey ëllëg. gën a waxal a kenn ku nangu. mu ma bëgg maam Thierno nee daana ko wax waaye da koy waxaat ne amul kenn comme nangu mu gën koo bëgg maam Thierno nee na xëy na xamul lépp waaye lam ci xam doy na sëkk te la ci ëpp sëriñ Basiru moo tax mu xam te nee la ci ëpp nag moo tax mu xam ko ci daa xam sëriñ Basiru foo ko maam Thierno tolloon li mu jàng li mu jàng ci ñi mu gis leen ci téere yi wala mu dégg ko ñu wala wala mu xam ko ci ci mu nekk amul kenn koo xam ne nam naawe maam Cerno naawe ko mu ne day wax ne Sëriñ Basiiru li mu jàng gis ko ci téere yi jàng du ko xam du ko dégg nee li mu jàng ci téere yi gis ko wala li mu dégg wala li mu xam amul kenn koo xam ne Sëriñ Muntaxa xam na ne sëñ Basiru gën a naw kooka ci maam Thierno. nee na loolu bu yàgg la ko waxoon. nee na da koy yeesalaat ci jotaay bi moom nee na loolu la gëm moom sëñ. nee na loolu it lay dund ci maam Thierno. nee na mi ngi leen koy seeralaat kon. waaw kon da ngeen xam ne kon lii man xamul amul lenn lu ma a loolu lépp ko mënuma mun mun na jataay bi lim ci yëg dafa amul lenn lu mu ci mën a leeral fi ko àgg ci mbégteem ci soññ gi mu koy soññ ak dolli gi mu koy dolli yaakaar jataay bi limu ci yëgee mënu koo misaal ci ci làmmiñam non non rek la ko mën a tënk doora gën a yeesal ak cant bu baax a baax nag amiin mi ngi yónnee di yeesal ak cant ak ngërëm ci sëriñ Abbas ak xelam mu dal di gën a xam ne am naa ko ci yéen nee na muy gën a sos di gën a fees di gën a mi nga xam ne am na ko ci yéen di leen sant nag di leen gërëm loo xam ne sëriñ Tuubaa loo xam ne sëriñ Tuubaa ma ci mën a wax moo di loolu. nee na loolu rek mooy lim ci mën a wax. li ci mën loolu li ci mën a wax. waaw yàlla waaw yàlla. dafay sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi lay ziara di nuyoo ci turu sëriñ bi sëriñ Abbas moom mi nga xam ne mooy borom Daaru Muxti tey mooy kilifa ku yaakaar borom Daaru Muxti mu am nu mu doxale woon bi muy door a toog ci mm, jotaay ba dafa am lu mu tërale woon am lu may liggéeyloo am lu muy liggéeyloo sëñ Cheikh Asfay mi mm-hmm. kenn ku nekk mu am bëgg nga di ko taxawee ci ab liggéeyam gàttal ko mooy dafa bëgg ànd ak ñëpp lu aju ci borom daaru rek ñu ànd liggéey bi mu am ca loo xam ne gën naa fes tey ndax dafa waxoon ne sëriñ Moustapha Absa moom sëriñ mu daw bal defu ko jëwriñ yàllaa ko def jëwriñ ci ba fi bàyyam nekkee sëriñ mu daw bal ba tey kon fa mu nekkoon foofa rek la ko la ko la koy teg waaye da caa tegoon itam ne sëriñ maam Thierno mii moom sëñ Cheikh Awa Balla foo xam ne sëñ Moustapha waroon na faa teew ci wàllu jëwriñ gi ànd ko ñu ñëpp kan ku ci ne la muy liggéeyee su boobaa sëñ maam Thierno bu fa teewee rek mel na ne ñëpp teew nañ loolu moo tax mu joxe woon digal ne njaboot gépp nañu daje kër sëñ maam Thierno ñu waaje foofa mu door a ñëw ci ci yow ci ci ziyaara bi ab ziyaara rek la niñ ko waxee léegi ci kayit bi ramziya rek la ndax fa ñu bëgg àgg àggaguñu fa yéene ji moom àgg na fa waaye e, jëf ji àggagu fa te gëm nañ ne nii nga nii nga xam ne nii la saxol sedd boo ko boo ko ñaanee fañ bëgg àgg dinañ fa àgg te gëm nañ ko bu baax a baax sëriñ bi nag di sëriñ Abbas dafa bëgg mboolem koo xam ne kii e, barkeelu na ci liggéey bi e, nga warlul ko ci sëriñ tuubaa Euh, li mu ci def buñ ko fekkewaatee dafa mel ne dañoo dañoo bayoon ba bay farmango mm-hmm. bu ñu ruujiwaatee bu ñuy delti mm-hmm. kenn ku ne la mu ci defoon na man ñaaram wala ñettam loolu loolu loolu la lañu fas yéene ñu ñu kenn ku ci nekk mu fas ko ci li mu doon def te nga te nga fasal nu ko te ñaanal nu ko ñu ñaan yàlla sunu borom it mu gën laa yàggal bu baax te te gën laa wéral say cër ndax it maanaam euh, ñu bare bari bi ñu la defee ngay sëriñ Touba doonagoo sëriñ tuubaa ndax ni nga defoon waa kër Serigne Touba yi moo tax fekke nañ barab yu baree bari mm, waxtaan wa nga fa doon wax ci nekku sëriñ Cheikh Sidil Muxtaar te li si gën a bari wala Serigne Mouhamadul Amin Baara waaye loolu lépp booba gisoo yow yaay kan wala wala gisoo Serigne Bachir waaye yàlla moom da du delloo ay loxo Serigne Touba du delloo loxo kon foofee nga xam ne fi nga tegoon kilifa yi e, nëbb sa bopp yàlla nag moom ku nëbb sa bopp ngir moom moo lay feeñal na am na lu ñu gis loo xam ne gëm nañu ne e, sunu borom dimbale nanu ci ci ci ci yow ba yoon wi e, amul benn tiitaange amul benn njaqare xam nañ ne kanam rek lay jëm ndax loolu mooy li nga xam ne moom la ñu seetlu ci sa xilaafa gile ñuy ñaan yàlla sunu borom rek mu gën a yàgg te ànd ak wér goo xam ne gii e, gu mat sëkk lay doon te ñi nga xam ne itam dañoo fas yéene ànd ak yow liggéey kenn ku ci ne sunu borom defal ko loolee loolu sëriñ bi bëgg itam ci njaboot gi nag ci suñu kilifay bopp yi nu àndal sëriñ Maam Cerno sëriñ Cheikh su Faye sëriñ Xaadim ak bokk yi ñu àndal yëpp loolu moom mi ngi noon sa loxo kenn ku ci nekk daal euh, bu ñu fi dellu si waat déwén nañu ànd ak wér gu mat sëkk fekk la nga am wér gu mat sëkk te lépp lu ñuy def lu nekk itam mu am ci ngërëmul sëriñ Touba loolu daal mooy li nga xam ne naa ci sëriñ Touba ne ni mu ko waxee rek la alhamdulilah alhamdulilah nee na dogu na ci sëñ Tuubaa ñëpp dëgg nañ ko te loola loolay am nee ni ngeen ko bëggee lépp noonu ngeen koy amee ci barkeb sëriñ Tuubaa doy na sëkk Mbàkke yàlla nga fi yàgg jiwee fi mu toll waaye dogu naa moom dogu naa waaw ci sëriñ Tuubaa ni ngeen ko bëggee noonu ngeen koy amee ndaw yi sëriñ Abbas yebal seen xol sedd na bañ juddoo ba tey mosuñoo am yónneen bu ëpp jóge ci ceer ceerno dem sëñ Tuubaa fasaale nañ ku dikk ak ku dikkul mbàkki kenn du la ni fii ngay teg sa tànk ba ngay toppe sew toppin du lu ñuy defaraat bi nga demee bañ di la topp ku roy ci yow toppin war rafet fet yàlla na nga fi yàgg te amiin ceer na doon na lu ne ci yoon wi waaye teg nga ko fa nga ko war a teg fu ko sëriñ Tuubaa tegan teg teg bu ko ëpp dala ëpp ba doole mbaa mu ëpp la baat waaye kenn ëpp la yéene ceer na Ibra Faati nga ñaanal mu sëriñ Abbas yàgg fi lool téwéer njobootam gii mu doyloo joxe sa njoboot ñu jëm ca sëñ Tuubaa nga boole kook sa diir te demoo ña nga yabal doy nañ la